ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وتبتنه بالهادي الوفي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi nuyu kenn ku ne sa ak sant di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu boroom yàggal ko fi ba yéene ji am ci liggéeyal sëriñ Touba mu defee ko noonu ko bëggee di am mbégte kontaan bu baax ci waa daayiratu Muxaddamatul Xidma bi nga xamante ne ñooy saytu jumaay Touba ak li ko wër dañoo ñëw fii tey ci marché Ocass ngir massawuñu ci lakk-lakk yi nga xam ne am na ci marché bi loolu nag waa marché Ocass yëpp ñoo ngi koy rafetlu di sant yàlla bu baax di xam ni dëgg la méttee du am na waaye dafa mel ni ànd nañ ko ak waa kër Serigne Touba yëpp ndax sëriñ Serigne Mountakha mi nga xamante ni mooy kii la xalifa général di murit moom ci boppam wax na ne yëf yi yéen sama njaboot ngeen ci yéen laa bokk lu dal ci seen kaw mel ni dal na ci man maa ngi ci seen kanam maa ngi seen ginnaaw yëg-yëg boobu am nag mboolem taalibe yi ak rakkam yi ak taalibeem yi ak organisation yi nekk dëkk bi yëpp moom la am ndax bam xame ba amee ba léegi fenn fu ne waaye jóge na fa ngir ñëw di ñu masawu kon bu waa jumaay Tuubaa ñëwee daayira Muxaddamatul Xidmata ci njiitul sëriñ Afiya Buso mu yebal ab délégation bu mat délégation loolu duñ man lu du rafetlu ko ñun commerçant yi xam ne ñoo féete ci marché bi di xam ni wax di yàlla de yëf yi dal na sunu xel bu baax a baax ndax bu ndee liggéey ci dëkk bi ab organisation yor jumaa ji di ko liggéey aw tiis dal sunu kaw ñoom ñëpp ñu àndandoo yëg tiis woowee wax dëgg yàlla lu ñu rafet lay baax ndax sëriñ Afee ci boppam moom ci boppam xañ na sax ba yëg fi ba yëf yi amee moom ci fajar séen nañ ko mu ñëw di xool di di mastawu moom sax bëgg bëggatuñ ko gis ndax kaala gi waaye ñu ko xàmmee te xam ni xam ni moom kenn jiituwu ko fi ba mu jullee fajar ba noppi yabalaat ab délégation boo xam te ni ci daayira Muxaddamatul Xidma la ko jiitee ñu ñëw fii dañu masaw loolu day dalum xel bu baax a baax lépp loo xamante ni lu metti woon la day daal di woyof ci ñun bu baax a baax ci biir délégation boobu nag ñoom tam ñu ànd ak suñuy magi commerçant yoo xam ne ñoo ngi fii ci marché bi di sëriñ Xaadim Lo ak sëriñ Daam Jaxate di ñoom di suñuy mag di suñuy doyen te jiituñu ci lépp ndax ñoom rek mënoon nañ koo dawal mënoon nañ koo mënoon leen a sax wax dëgg yàlla ñëw gi ñëw gi rëy na ci ñun ñu lool ndax bu toogoon fan toog ñaanal ñu ca biir jumaa ja rek doyoon na sëkk ndax yëg gin ko yëg ba mu tàbbi ci seen xool wax dëgg yàlla bu toogoon ñaan foofa doyoon na sëkk waaye loolu dayatu leen ñu def benn délégation ànd ak ak suñu magi commerçant ñëw di ñu masaw loolu wax dëgg yàlla lu rëy fi ñun la kon nag yéen waa dayratu Muxaddamatul Xidma ci njiital sëriñ bu soo ñoo ngi leen dalal ñoo ngi dalal fii ci marché Ocass ci njiitul suñu délégué marché sëriñ Sini Jeng mi ngi nii toog ak mbooleem commerçant yi nga xamante ni ñoo nekk ci marché bi di euh, association bi nga xamante ni ñoo jiite commercant yi ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci marché bi di góor ak jigéen ak mbooleem marché ambulant yi nga xamante ni moom itam ñoo ngi fii ci marché bi te seen njiit di Alaaji Fall ñun ñëpp ngeen ñëw ngir seet seen ngir masawo di leen jaajëfal bu baax baax di xam ni wax di yàlla lii de rëy na fi ñun lool ñoo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa jéego yii leen tax a jóg ngir masawuñu suñ borom def mu gëj fi lool te képp ku mu daloon sa kawit nga am xéewal yu yaatu yoo xam ne yoo ko mën a daal di fàtte léeg ndax yàlla am na ko mën na ko li ñuy faral di wax rek saa su am natt dolee ab jullit dafa am loo xam te ni lu mu koy sippil ci ay ñaawteef wala mu am ay yiw yu mu koy fàggul loolu loolu sëriñ taxa waxit te jàpp nañ ko kon yéen seen tànk yi day gën a dara suñu xel bu baax baax ndax bu ngeen dee liggéey ci jumaay sëriñ Tuubaa nga xam ne dara ëpp ko doole tey dara gënu ko kawe yëg-yëg bi rek dafa doyoon walbatiku ngeen def délégation ñëw fekk suñu fii suñu xool dina sedd suñu yaakaar dina gën a dooleeku kon nag ñoo leen di sant bu baax ci mboolem njabatuk marché Ocass mboolem góor ak jigéen ñi fi nekk ak sunu doyen bi nga xamante ne tam da ko fekkut te moom lépp moo ko moom tam moo ko doon woote di ko dox muy Serigne Moussa Mbaye ñoo ngi ñaan ci yàlla dox tànk ñu yàlla bu dara neen kon nag ñu jox Serigne Abdou Lahad Bousso kaddu gi mu indi masaw yi ba nopp ba noppee ñu jox Serigne Serigne Sini Dieng délégué marché mu tontu ko ay ay ay kaddu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa moolana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum taala wa barakaatuhu sëriñ siini ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd bàyyi ko ci daaira muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afia ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci bokk di ko teg ci sa loxo yow ak sëriñ Fallou Xuma mi ngeen tegal nu ko ci loxo yi sunu bokk yi nga xam ne ñoom la nattub sunu borom bi wàcc ci seen kaw te su ma ko sañee wax sax damay wax ne nun ñi nga xam ne ñun la nattub sunu borom bi wàcc ci sunu kaw ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu teew fi tey nag ci tuuru daairatu muqaddamatul xidma ci jiitul sëriñ Abdul Ahad Bousso mii nga xam ne moo jiite commission sociale bi nekk nii ci sama wet man mii ma bokk ci secretaire général daayira bi ak sëriñ Xasan mi nga xam ne mooy topp ci ki jiite commission culturelle bi ànd it ak sëriñ Cheikh Abdou Ahad Diatara mi nga xam ne moom itam moo topp ci ñi ko yore commission organisation bi ànd itam ak sëriñ Modou Mbacké nekk adjoint moom itam ci commission organisation ak Serigne Abdoul bu Bousso mi nga xam ne moo yore communication ak nag ñi nga xam ne ñoo yore relation bi nga xam ne moo dox diggante daayira bi ak euh, opérateur économique yi wala dox diggante daayira bi ak yeneen mbooloo yi nga xam ne ñoo fi nekk te ñooñu ñu mën cee ràññee tey jii Serigne Khadim Lo mii ak Serigne Dame Diakhaté mii waaye même Serigne Fallou Xuma mii toog itam bokk ci ñooñu ñu teew fi nag tey ci. turu daayirat Muxaddamatul Xidma yëpp fu ne commission bu ne ñu jël ci kenn ànd ñëw ngir massawu leen ci diis bii nga xam ne sunu borom mi nga xam ne mooy teg ab jaamam lu ko soob moo ko sàkk wàcce ko ci sunu kaw muy lu diis lool nag te metti lool ci xol yëpp ku dëkkul ci dëkk bi sax wala du ab jullit rawati di ab taalibe bu gisee lii te xolam dara ci tombuk lu baax nekk ca ak yénn nit jàmm dana xam ne lii lu metti la lii lu tiis la waaye suñ borom nag moo sàkk doomu aadama sàkk leen def leen ay jullit te jullit moom sunu borom ci boppam moo waxoon ne mooy ngën ji xeet kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ah, bi mu tànn leen tànnee ngeen di ay jullit itam mu tànnaat leen ci biir jullit yi defaat leen ngeen di taalibey Sëriñ Tuubaa tànnaat leen ci biir taalibe Serigne Touba yi def leen ngeen di dëkkaale yi Serigne kon nag yooyu yëpp bu amee day firndeel ne xaj ji sunu borom lañ sunu boroom nag ay xajjam faw mu am fu muy jaar ak ñoom léeg lekk foofee muy jaar ak ñoom nag nattu lay tudd nattu nag mooy ñun ñëpp xam nañ ne baat bi wolof la dangay natt biteel bii ba xam dana fees wala du fees suñ boroom nag aw nattiin dafa bokkul ak nattuun doomu aadama ndax suñ borom su fekkee dafa natt mu fees moom day yàq li dolliwaat mu wóote ak mbindeef mbindeef moom bu nattee bu feesee bu tuuroo day bàyyi ndax day jàpp ne ak yàq la suñ boroom nag fu mu nit ba def ca ci moom coobareem mu muñ ko ci xol bu sedd daf koy dolli daf koy yàkkali dolli ko bu baax a baax a baax a baax a baax looloo tax fa muy daaneele te fa muy wax ci wàllu nattu te mooy aaya boobu tàmbalee woon ci wala nabluwannakum bi shay'in min al juu'i wal xawfi wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat la mu ko daaneele wa bassir as-saabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoo ne nag ulaayika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaayika humul muhtadun loolu mooy li nga xam ne noonu la suñ borom di jëflantee ak ab jaamam nattu bii nag nattu bu rëy la waaye nañu fàttaliku ne cheikhul xadim mi nga xam ne moo sañcoon dëkk bii léppam nattu la bi mu jógee ba ni ñu ko noppee gis juróom-ñaar fukki at ak juróom yi fi dund yëpp nekk na ci fanweeri at ak ñett yoo xam ne ci am natt la ko nekk bu nit ñi xam ak la ko jiitu woon ci natt yi nga xam ne moom moo ko xamoon digganteem ak boroomam kon xaajug dundam ci natt bi nit ñi gis la beneen xaaj bi ci des yeneen i nattu yoo xam ne digganteem ak boroomam loolu te yooya nun ñëpp bis bu set ñu di ci dégg yu bare bare yoo xam ne léeg-léeg rek ñu nett la ci benn boo xam ne dangay xam ne kii sunu borom yàgg na ko natt waaye sunu borom nag fum mu nërta def dara du fa jëmale ay nattoom euh, moom ci boppam wax na ni maa ngi leen di bàyyiloo xel ngeen xool man Seexul yi mii coono bi ma daj bi ma daataa am ngërëmul yàlla lu sax li loola misaal la ci beneen bi ci des itam mooy ñi ko gënoon a jege. te njëkk a ànd ak moom ñooña rek seeni nattu dafa doy ay nattu bi mu fi jógee dem ci géej gi ñi mu fi bàyyi woon kër guñ mës a dëkk defar ko ba mu baax ba mel ne panaal ñëpp di ko naw ngir booba tàggat ne leen ci liggéey ko civilisé ko xay ñu jaare leen ginnaaw lakk maam Thierno fu mu mës a dëkk lakk nañ ko sëñ Mbàkke Buso fu mu mës a dëkk lakk nañ ko sëñ daam Abdourahmane la ku nekk ci ñoom rek say kër lakk nañ ko lakkati ko lakkati ko waaye lu mu leen jural ñoom de tey jii ñooy kàngami yoon wi nga xam ne ku jàqati sam xel sax du egg ci sëñ bi waaye ci ñoom lay yem daf leen a dollee duyal loo xam ne ku nekk tey jii teg na ko bët ñee leen ci kon nag yéen it na seen xel dal te seen jot rafet te xam ne euh, wolof sax dafay wax ne lakk lu mu fa jële la koy wutoo koy gën fuuf te moo koy ëpp fuuf te Cheikh Mouhamadul Mountakha wax na ko sunu borom moo ko fi indi woon moom moo ko fi andi woon it jeexalu dara te mën na fay def lu ko gën mën na fay def lu ko ëpp yàlla na ko fi def te ngeen muurloo ko ci barkeb Serigne Touba ñi ngi ànd ak yéen nag bu baax a baax a baax a baax a baax di ko teg ci seen loxo di leen ko seereel di ko seereel sunu mag yi ñu àndal. te ànd ak ñoom ci liggéey bi bañ tàmbalee ba léegi sëriñ Xaadim mii ak sëriñ Daam mii waaye itam ak sëriñ Moussa Mbay mi nga xam ne jëwriñ la moom ci liggéey bi di ànd ak yéen nag di fàttaliku suñu jeneen mag yoo xam ne dañ daan ànd ak moom liggéey bi mu doonoon ci jàmbaar lool doonoon ci ko sawar lool te xam naa ne bu ku fi lii fekkoon itam lii ñu def kenn du ko ci jiitu muy sëriñ Moustapha Gadiaga yàlla na ko suñu borom dolli njëggal te dolli ko yërmande te xaare ko àjjana te teg loxo ci njabootam te bàyyi nu fi nag ñu yàgg koo ñaanal bu baax a baax a baax a baax sëriñ Fallou daal wax ji mët a guddal mbir dana dal sa kaw dalin woo xam ne doo ca mën a toppaat nag di wax la ngay def rek mooy yëg ko ci sa xol tiisoo ko lool mu metti ceew lool waaye lépp nag dañ koy delloo ci yàlla mi nga xam ni moonu moom te sañ ci te sañ ci nun lu ko neex tey jëf ci nun lu ko soob te lu jëf ci nun mu war noo neex te loolu mooy li nga xam ne loolu la di Sëriñ Tuubaa jàngaloon yaa rabbi in ataytani fa shukru wa in manata fa ridan wa sabru kon nag ridan ak sabru rek moo fi nekk te jàpp nañ ne moo fi mas di nekk te moo fiy nekk ba faw te loolu nag dara mënu cee topp lu muy ay xéewal xéewal rek moo ci topp kon nag nañ sant yàlla bu baax te xam ne suñ borom daf ñoo namba tëbb xéewal yoo xam ne xamuñu fu ñuy fu muy fu muy jóge rek loolu rek la rek la wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waaye wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu kon nag nañ delloo suñ bopp ci yàlla gën koo doyloo gën koo bàyyee suñ bopp doon taalibe sëriñ tubaa yoo xam ni dañuy xool ci sëriñ tubaa ak lim jànkoonteel lu ñu ci yàlla sédd ci natt yooyee nga xam ne benn xajul ci ñun waaye lu mu ci coppati sotti ko ci suñ kaw ñu xam ne loolu lu ñuy dolli xeewal rek la te lii ca loolee la bokk kon nag ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne dara taw lu mel nii yàlla bu mu fi amati yàlla na gëj ci àdduna bépp ndax yàlla mënut ñàkk di teg ci àdduna bi ay natt yoo xam ne da ciy xool jàmm ni waaye yàlla na gëj fépp yàlla bu ñu ko gaaw a dee dégg fenn rawatina ci biir Sénégal gii rawatina ci biir Touba gii te ñi nga xam ne itam yàlla dogal na seen alal lu bari yàqu ci ndax alal du yàqu feek borom a ngi dund ndax nit moo mën a fàggu alal waaye alal mënut a fàggu nit te feeg nit kaa ngi dund rek mën naa amaat lu ëpp la mu amoon waaye ñi nga xam dara seen alal wala la yàqu na ci kenn ku nekk yàlla na ko suñu borom watteele tiyaaba te watteel ko jeneen alal ju ko gën te mu toog te muurloo ko ci barke Cheikhul Khadim ñi ngi delluwaat di massawu ñëpp di leen jéggalu itam ci yeex gee jóg dafa tiisoon ci nan la ñuy ko mbokk yi di di di di di wax ndax yëf yi dafa egg ci suñu biir xol foo xam ne doy na waar ndax fii moom dañuy ñun ñuy ñoom ci lépp lépp luñ mas sumb mu jëm ci jumaa ji kenn mënu leen ci te taxawaay bu rafet lañ ciy taxaw ci seen poos ci seen doole ci seen xel ci seen xam-xam ci seenu jokkale bari nañ moos kuy jëf ci liggéey bi te nun ñii buñ dajeek moom duñ ko xam te lépp ci seen taxawaay la kon nag wax dëgg yàlla bu dara dalee ci seen kaw danañu tiis lool ñu taxaw ci seen kanam te mënuñ ci dara waaye lañ man nag ña nga ca te mooy ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa ak barab bu tedd bee ñu nekk te ñu yaakaare ko lool muy barab buy nangu ñaan te ñëpp gëm ne barab bu ñuy nangoo ñaan la suñ borom dolli xéewal te musal ñun ñëpp sant nañ ko nag ndax nii mu yóbboo alal bu ko neexoon mu yóbboo ko ay bakkan te kon la doon gën a tiis ndax lu mu metti metti metti rek lu dem ci alal metti na tiis na ëpp na waaye bu doonee ni bakkan lay ñaari bakkan képp moo gën a diis loolu lépp ndax alal ji bakkan yi mën nañ koo delloosi te alal ji mënut a delloosi bakkan yi kon nag ñu ngi koy sant ci tànn gi mu tànn ay alal loolu Cheikh Mouhamadul Fadil daan wax naan aw ay baaxul waaye askay baax na ndax dana tax a xam lii li muy metti metti metti metti metti dana tax ñu xam bu ëllëgee fu ñuy teg suñuy loxo suñuy tànk dana tax itam ñu xam kan mooy kan ci nun kenn ku nekk nan nan nan nan la ñu gisee ndax bu ñu seetloo mën nañoo gis ñoo xam ne la ngay mën a jàpp mooy lii neex na neex na leen mën ngaa gis ñoo xam ne la ngay mën a jàpp mooy lii metti na ci ñoom da ngay mën a mën ngaa gis ñoo xam ne la ngay jàpp mooy lii kat fi mu la toll yow mi la yow mi mu dal moo noonu la ko toll kon danga xam kenn ku nekk mooy kan kon nag euh, nañu suñ borom may xolub muñ te may ñu xolu gërëm dogal bu yàlla te wutal nu lu ko gën ci barke Cheikhul Khadim te yàggal fi loolu Cheikh Mouhamadul Mountakha te yéen ñëpp kenn ku nekk bala ñoo tawaat fii mu nëgëri déwén mu fàtte ne mas naa yàqu dara ngir am lu ko ëpp am lu ko gën am lu ko gën a tey itam ci moom ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bu santee yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba di sant suñuy waajur noo ngi leen di sant di leen dalal jàmm. di wax dëgg yàlla yëf li may tiis tiis sunu xol sedd na sunum xel dal na. ndax ñetti kuréel a ngi ñëw ci marché bi yoo xam ne ñoom rekk bu ñu ñëwoon wala ñu toog fa ñu toog. metti lu rek doy na benn bi ci jëkk muy waa Touba ca kanam Touba ca kanam ku ne bëgg na ko luy jëmee Touba ca kanam moom am na solo kon bi ñu ñëwee seet si ñu jàpp nañ ne marché bi ca kanam lay jëm incha allahu rabbi loolu doyatul jàngalekat yi alxuraan yi léegi lañ fi jóge bu fi jàngalekat yi alxuraan yi jógee léegi di seetlu di di di seet si ñu sunu xol sedd na loolu rek doyati na. ñu ne joojooti fa ñuy jaamoo yàlla di barabu sëriñ Touba ñi nga xam ne ñoo koy seetu ñëw am seenu mettit ba ñëw di nu di nu seet si loolu it wax dëgg yàlla lu rëy rëy la kon dafa mel ne daanaka wax ji lépp sëñ Fallou wax na ko guddal bi daal du ci am solo na ngeen xam ne waa marché bépp seen xol sedd na ñiy yàqule da loolu yi nga wax dafa munta ñàkk ndax fi ni toll nii réy na lool waaye askay ndax bu fekkonte ne bakkan benn bakkan faatu na ci rek aw aylay doon ndax alal jëpp jëpp jëpp li fi lakk lépp kuñ ne woon nañ la ko jox teñ faat ci sa doom kenn mbaa ci sa mbokk kenn doo ko nangu kon nag sant nañ yàlla bu baax di ko sant yàlla dogal na marché bi li mu fi lakk ay yooni yooni yoon waaye bakkan mos benn yoon la fi bakkan masa faatoo te loolu yaakaar naa ñi yàgg Tuubaa xam nañ ko mu jamono yi sëñ ka ñuy wax daabo boobu marché bi melagul nii daabo ab jaaykatu euh, euh, nu mu tuddati woon euh, lakkatu yàpp la woon bi marché bi lakkee ab pël faatu ca mu tiit daw ci sëñ Fallou ne sëñ Fallou marché lakk na ñu ne ñu ne ñu ne daabo daabo ab bambara la kooku depuis boobu ci jamono sëñ fàllu ba léegi yàlla dogal na marché bi lu mu lakk lu fi yàqu-yàqu am wax dëgg yàlla Euh, bakkan euh, euh, bakkan demu ci te kon loolu nga wax ne alal ji bakkan yi ñoo ko mën a wuti waaye alal mun a wut munta wuti bakkan loolu wax dëgg yàlla xalaat bu rafet la boo xamante ni da nga noo yeesalaatal sunu xel ak sunu xol noo nga leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar leen sant ah di rafetlu yoon wi nga xam ne si waa daayiratul xet xidma ñëw nañ seet si waa marché bi ndox comme ni ko ñëpp waxee rek ñoom buñ toogoon ñaan rek mu doy sëkk mu ci boolee ñëw nag seeni ko ba yegsi dikk ci sunu biir ñaax nu dolli nu gërëmal nu mas masawunu ah dañu gën a dëgëral suñu yaakaar gën a dolli suñu passif te xam ne sëñ bi moom moom rek moo fi ne te ku ko jegee ku ne lu ko wokk boobu nga séntu mu xuri la ndax ñi ko gën ci ay ñooñam mooy ñim dëkkal nit nag boo dëkkee moom lu ko laal dana laal li ci am solo rek mooy du dëgël suñu yaakaar te dëggal suñu pastéef tey góor góorgóorlu bu baax ci ndigal yi di fexe bay jëfe ndigal yi di daw tereel kem suñu kàttan loolu rek mooy mooy mooy suñu dimbal tey ak ëllëg sant na nag daa mënta sant ndax am réew mu réew mépp dajee ñëw léeg daal ñëpp taxaw di la ci masawu sab xol war naa sedd yu la nga ñàkk lu nuur nuur lu metti war naa sedd ci ndax ñëpp a ko jàmbat réew mépp Sénégal foo jëm ñëpp def nañ ay délégation ñëw teew si fii masawu ñi génn seen i suuf joxe ñi génn seen i joxe ñii génn seen wax ju baax joxe ñi génn seeni ñaan joxe kon nag ñun duñ ci man lu dul rek gërëm di sant tey gën a dëgëral suñu positif tey dooli suñu ngëm tey dooli góor góorgóorlu ci liggéey sëriñ bi ak wéy ci ay ndigalam noo sant nag bu baax di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ndax li sëñ daam wax rek bu ngeen toogoon ñaan rek doy na sëkk wax di yàlla waaye yëg-yëg it am na ngeen dégg ko te xam naa ne ñaan ngeen it wax di yàlla ndax bi ngeen ko déggee lu dal ci saw ñun li ngeen wax léegi rek li nekk ci yéen moo nekk ñun yéen ay bi ñun ñoo waa marché bi kon ñoo bokk lépp ñu dox si sëriñ xaadim loo moom itam mu sànn ci kàddu billaahi ali asim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow sëriñ Abdou Lahad yaag mbooloo mi nga àndal yëpp te ñun mën nañu sax ci mbooloo mi lañ bokk ñu ngi lay delloo ak cant ak ngërëm ci ndigalal mbooleem commerçant yëpp nag di la jotlu ak cant ak ngërëm ci sëñ Afe mi nga xam ne mooy njiital daayiratu Muxaddamatul Xidma te di gën a bég ci moom lool di gën a bég ci yéen ci seen taxawaay ci fànn yu bari nag ndax liggéey bii nga xamante bi ne maanaam moom la leen yàlla jagleel e, ngeen di ko def yàlla baax ñu yàgg ko ànd ak yéen liggéey la boo xamante ne ñi ko rafetlu yaatu nañ lool bari na lool te liggéey boo xam ne benn liggéey bu ko féete ko man xaw ma ko ñu amee la genn cant goo xamante ni dox na ci diggante bi muy seen taxawaay ci jëmm ji nga xam ne suñu Abdou Lahad Bousso tudd na ko fi léegi muy Alaaji Mamadou Moustapha Gadiaga bi yàlla ñëwee ak coobareem ngeen taxaw ci taxawaay boo xamante bi ne ñëpp naw lañ leen ci suñ xel dal na ci lool ci ànd ak yéen ci li ngeen nekk ndax xam nañ ne euh, benn taxawaay bu féete kaw booba taxawaay amul suñ xel dal na ci nag suñ xol sedd ci guy te jëmm joojee ngeen ko defal day bu dellu si waat ak lu mu doon doon jàmbaar dana xam ne moom defagul woon dara ndax loolu ab soññee lay doon ci kon ñun ñi fi bàyyi ñun xam nañ ne ñu mat a ngeen kon ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu mu gën leen a dëgëral tëbb leen kàttan ba li ngeen yéenee liggéey Sëriñ Tuubaa lépp suñu borom def ngeen def ko ba kawe ba def ko nu kawe ni ngeen ko bëggee bi jaay siir na ba nga xaaj loolu rek laa ci bëggoon sonni ci kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf